je suis le coordinateur de la bonne cause dañu am nag ku ko xamal ni ko initié mooy Aïssa Souma Sylla mi nga xamal ni moo nekk suma wet euh, te ñu bari jàpp ci cause c'est un mouvement boo xamal ni li muy doxal bari na la base c'est le cimetière cimetière nag boo fa duggee da ngay am une sensibilité humaine ba nga xamal ni def lu baax rek mooy nekk sa xel béy armeel yi mooy

ñom la ñuy jàppale di len euh, topoto sen santé at yoyu ba nga xamni ni vraiment dinañu nek dans de très bonnes conditions. un défunt un parent koku mes slogan la bo xamante c'est très important waaw parce que défunt bu nek am nga mbokk ci biti bu kenn ñëwé sax sa benn mbokk bu ñëwee toppatoo fofu rek foog naa ni foofu dana mëna a un défunt un parent défunt bu ne am nga benn mbokk.

luñ fa gis loo xamal ni dafa dañ ko war a defar dañuy ñëw dugg ci defar ko ngir yàlla loolu moo ñu tax a jóg te ñun ñëpp ngay gis ñi ci armeer yi la ñu xamante xamante wu feneen lu ci armeel yi ñëw di ziar contact am euh, la bonne volonté bi bi nga xamal ni moom moo ko créé contacté la wax la nga d'accord bokk ci mouvement bi. mais dañuy participer ci armeer yëpp armeeru Sénégal yëpp que ça soit chrétien. musulmans, yooyu yëpp dañ ci participer té xam nga li tax sax bëgguñu structurer organisation bo gis ñu né am na bureau bureau ba dañ koy renouveler té lool moy indi ay problème ñun soxla soxlawuñu renouveler soxlawuñu dara am nañ responsable bo xamanteni mu ngi fi ñun top nañ ci gannaawam je suis le coordonnateur am nañ ay jigen yo xamanteni ñu ngi fi at euh le bon euh, le responsable aussi Babou Aram Fat Diagne c'était la base loolooy base bi en tout cas li wóor daal mooy responsable bi alalam dina ci dem jëkkëram dina ci jëkkëram monsieur Sylla di ko gërëm di ko sant mag la ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg fi dina ci dem ak de de volonté yoo xamal ni dañuy ñëw aussi di participer loolu daal mais amul benn cotisation cotisation bu amee rek yaa ngi formaliser yooyu dañ ko bëggul yow daal yéene nga yëkk yëkkati nga sa alal joxe ñu def ko fi ñu ko war a def mu jeex. ñun nag euh, li ñuy jëkk a remercier ki nga xaman ni moo ñu jiite ci mouvement bi ay euh, Aïcha Souma Sella parce que nekk jigéen. nekk ndaw jamono tëradi nga yëkk sa alal danga ko jox cër pour li ngeen bokk mën a marché